asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen ñi ci uraasul iraada leen di nuyu di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm ah, kii kay xanaa dafa yees nii rek maanaam bombardement hôpital bii dafa yees nii rek moo tax mu xaw a doy waaye ñoom njëkk ñoom ñoo ko njëkk def de du ñoom ñoo ko njëkk a def otaan def na bombardement bu gën a metti bii ci benn hôpital ci Libye bi ñuy dàkk Sada Xada Xadaafi pour rey ko bombardé nañ hôpital ci Libye bombardement boo xam ne na xale ya fa nekkoon dagg tooye moo raw nit ñi dagg tooye xanaa kay da ngay wax ne bii mooy ñaareel bi yoon ma gis ñu def ko bombardé nañ ab hôpital ci Libye ci guerre bi nga xam ne moom la OTAN doon guerre ak Libye pour daaneel Kadhafi bombardé nañ hôpital ci Libye xëy na nag tey juróomi téeméer yii rek moo moom moo bees nii waaye ñii yàgge nañ lii jullit ñi nag ñoom ñooy gaaw a fàtte waaye guerru libi bombardé nañ fa opi ñaari hôpital hôpital bu ca nekk dañ koo bombarde am na ci hôpital yoo xam ne dañoo rey malaat ya jekk li ñu doon sukuraat reyaale sax docteur ya fa nekkoon loolu am na xëy na nag otaan moom mbooleem service yi nga xam ne ñooy tasaare xibaari àddina yi ci ëpp ci réew yi otaan bokk lañ nekk buñ bëggee nëbb leen du feeñ ñaareel bi muy youtube muy youtube ak muy google ak mooy ñooñu yëpp ñalit moom ay ay ay juif lañu ay israélien lañu am na yoo xam ne dañ lay wax ne boo ko fi bëgg wala ñu ñu dagg sa ñu dagg sa sa scène bi dootoo dootoo continuer Israël luñ bëggul mu tas du taas ba léegi àddina xamaguñ ne mboolem kay yi nga xamne ne mom la jaare ci asaman di tas ay xibaar yépp Israël ñoko mom ba léegi nit ñi ñu lolu ndax Israël dañoo tas ci adina bi ci réew yi nit ñu xonku ñi lañ gëna a bëri ndax fofu lañ mëna a kën du leen xam ñi lak lak réew mel ni ca lañ bokku waaye mbooleem tasukaayu xibaar yu mag yi nga xam ne dañoo am ay groupement radar yu nekk ci kaw asamaan ay Google ak ay YouTube ak ay Twitter ak ay ñooñu ngay gis ñëpp ay Facebook ak ay ay ay WhatsApp ak bu dul loolu loolu tik bu mi nga xam ne chinois yi ñoo ko moom beneen groupement wu tasaarewukaayu xabaar boo gis ci àddina bi. ak réew moo ko mën dégg ci réewu tubaab yi ka ko moom banu Israël la bokk ab juif la noonu lañu ñu coloniser àddina bi am na ci yoo xam ne mu ne su ko lijjanti waaye lii sëriñ bii di wax bombardement ñaari hôpital amoon na libi te waa otaan ko defoon xanaa kay na wax ne bii mooy ñaari yoon bu mu xewee gun ci jamono yi ñu nekk saoudia gi nga xam ne moom mooy capitalu islaam bi dégaa bi di am dafa fekkoon ñuy bëgg a signé ak Israël pour jubóog ñoom delloo seeni ambassade lan la lan la lan la buuru Arabie Saoudite ba wax moom de njàmbaar gi ñu koy tagg yépp mooy ah moom kat nee na ginnaaw Israël bëggoon na maa jubóog yow te yaa ngi tëj waa Gaza na aj naa jubóo gi waaw aj naa jubóo gi ba xeex bi jeex bu xeex bi jeexee nag ah, ñu door a jubóowaat loolu xalaat la kon benn Salman benn pexe rek la am ci àddina mooy na maa jubóog yow waaye ndegam yaa ngi xeex ak Gaza aj naa jubóo gi aj naa ko waaye nag soo reyee waa Gaza ba coow li jeex. ma del si ñu juboo loolu de moom lay mën a tekki loolu képp la mën a dimbalee waa Gaza naroon damaa jubóog Israël waaye ginnaaw ñu ngi xeex ak Gaza damay toog ba xeex bi jeex bu xeex bi jeexulee du ma mën a jubóog ñoom mais sëñ bi xool leen lii xew ci àddina bi àddina bi doy na waar yal na ci jub yal na yàlla teg ci sellal ay palto par douze ci tàngaayu Afrique bi ak felt ak casque wan wan casque et nan la ñuy feccee pàccanga yooyu lañ doon jàngal africain yi waaye wote bii tubaab bi gaaree nu mu def ba defar ko déedéet duñ leen ko jàngal roplaan gii naa fu nañ jaar ba defar ko ko ko jàngal loolu pays asiatique yi nga xam ne ñoom dañoo gis ne ci technologie la gaa yi jaar ba tiim leen ñoom ñoo am yeewuteeg loolu ndaxam Iran dafa yéex a jóg ndax bariwaa na lu nit di def defe ne jàmmam la aw ayam la Amérique dañoo jàppoon ne Iran du ñu ay arab ay perse lañ ñaareel bi mas ab chia lañ yore ñëw ahlu sunna déggoowuñu ba ñu bëggee def gendarmerie di golf ñu bëgg ko def Saddam Hussein mun sotti ndax sunnite la julit la sunnite la arab la dañ koo toxal ca Sadiran ndaxam Mohammad Reza Pahlavi bi ko tubaab bi dee jàppale surtout américains yi ngir bëgg mu doon gendarmerie di golf booba ñoom démocratie lañ gëm te booba royaume ma fa nekk mais tubaab bi kenn ku muy àndal ku ne bu fekke ne and ak ngay and ak mom mom intérêt da ca ne yow la nga nek diko tek sa askan yonem ne ci ñu jël nak xam-xam bobu yépp jaxasoog iranien yi pour def ko ci ñom ah ba gaay yi ba am xam-xam ba ab ab do nga daari ñew nangu réew ba bam nangu réew ma gaa yi continué waaye xam ngeen ne Iran ni mu gaaw a defaree ay radar sànni ko ci asamaan loolu ay malaaka jàngalu leen ko waaye ñoom bañ koy fexe dañoo yaakaaroon ne eh, Iran seen xaj la bu ñu yar boo xam ne du mën a génn seen kër am na ci xaj yi nag xaj yoo xam ne dañoo warale maanaam doomi til la xaj lañ waa bu ñu jekk dee mën nañu ci kër gi bu jekk amee ñu dem ci àll ba ndax farañ cosaanoo Iran dem ba am la mu bëgg wone gannaaw nekk ci boppam mboolem technologie bi jot a senn ci àddina bi ci alamul islaam yi iranien yi ñoo ko fi sennal Hamas bu ñu dee defar ay missiles iranien yi ñoo tax bu ñu ñëwee fii indi fi saamaan dañoo waxoon ne ñëwuñu pour di leen jaay oto dañoo ñëw pour jàngal leen ñu ngeen di defaree oto waaye ñimewuñ ñëwuñoo jaxasoo ak ñoom ngir ñaari yëf benn bi mooy dañ ne ñii di ñuy jullit ay yëfar lañu te tubaab yi nanguñu loolu ki dafa ànd ak OTAN bokk ci OTAN yóbbu fa doole joo xam ne bu dul Amérique lam fa yóbbu kenn yóbbu fa lu na toll. Jóob waaye ba ñu demee ba am liñ bëgg ci wàllu xam-xam ba ñu soxla ci tubaab yi ñoo ngi tàmbalee woon ak ginnaaw di leen ne nag bu muy kokk nay ron fu mu yem neex waaye. ni nu bëgg dundé dal nek grenier bo xamné am sax la ñuy doon doon saxam européen yi ñi ñëw di tipe di yobbu ñi fi nek njiit yi di yem di leen yobul, kuy tipe di yobbu ngay ne ko yobul mais bu yagge la nga am day jeex Afrique yalla daf ñoo nattoo natt boo ne du fi gaaw a yi gëwuma ne dina fi gaaw a jógee ndax réew mu ci nekk ña la bootoon ñooña ngay bëgg àndal doonte dañ lay jariñoo te duñ la jariñ bu dee senegal mu ne France rek moo dib dëkk bu dee nigeria mu ne Angleterre rek a dib dëkk séddoo gi ñu séddoo xel yi africain yi nga xam ne tey bu ma daje woon ak ab nigérien du ma mën a wax ak moom ndax day làkk anglais bay làkk français noonu la ñu tàggaloo ci lépp waaye njariñ li nekk ci Afrique bu fekkoonte ni africain yi am nañ xalaatu mën a booloo kon ba tey ba Afrique jàllee yàgg na. waye ñàkk bolo gi nak mo indi cool yi bolo gi mo indi tardement gi ananiya gi infiradiya bop sa bop gi sa intérêt kep intérêt sala gi mo indi tardement gi am ci bir Afrique gep te gaw ma dina ci gawa jogi doomi Afrique yi ñoo meuna frontière yi bennoo duñ faale a may ak seen idées yi ñàkk fay yi ñu yore loolu moo leen di mën a may li ngeen bëgg waaye li fekk yéen a ngi topp nguur yi nga xam ne tubaab yi ñoo ko fiy fal ci ak njaam ngeen di dee ci ak njaam ngeen di dee du ma wax nag ne def leen na Europe def ndax Europe moom dañoo boole nguur ak sëriñ sa gas ba mu xóot ñu suul leen benn sëriñ ci Iran rek moo taxaw opposé nguur gi muy imam ni amoon na ay naafiq yu ànd moom ne ay sëriñ lañu xamoon na leen waaye daa dem ba am li mu bëgg mu door leen won war ne yéen xam naa ne yéen tubaab yee àndoon waaye na ngeen tuub te jéggulu ndax ànduma ak samay samay mbokk pour di leen tëj ci kaso ak di leen rey mën naa wax ne ayatulaa diw ayatulaa diw ayatulaa diw ci la bokkoon waaye révolution islamique bu Iran benn bopp dong moo ko moo ko tabax mooy Imam Khomeini mboolem njiit yi ngay gis fii ci Sénégal ñu di leen topp ñi njiiti mag kenn koo ci ne ay taalibeem ni moo supérieur sa sëriñ ngeen reyante mais boo ko nee nañ dem ci résultat wu liggéey yi danañ xam ne du seen morom dafa weex rek neexul ba deg dafa weex waaw ginaaw dafa weex nag nu ñuul lolu mën dox ci digënté ak wayé euh bop yañ yor ak yuur yañ yor amna ci biir afrique noire ay nit ñu yor yuur yu mel nona amna ñu xam xel ni li tardel afrique njiti yi ci li tardel afrique njiti yi ci yàgg-yàgg danañ jóg ci njiit yi mbaa njiit yi jóg ci seen bopp waaye li tardeel Afrique moom njiit yi jóguñu ci njiiti àddina yi jóguñu ci njiiti diine yi jóguñu ci ndax njiiti diine yi lii seen tardement yi ñàkk ànd gi ñàkk ànd mooy seen tardement njiiti àddina yi li tax mënuñoo li lii seen tardement mooy kenn ku ne sa intérêt personnel ak sa famille ngay dawalee def ko pot boo xam ne ku naan ba noppi woo sa jox ko mu naan ñu ci des di dee ko mar waaye yal na yàlla jàppale Mali ak Burkina Faso ak Niger ba ñu réaliser fi loo xam ne dinañ woon nit ñi ne leen lay walay sa yu jëbu sawaadul jismi safaatal fata wasu ul fa mi bis bu ñu xamee ne ah, ñuul ak gàtt karaw mun ko tax nit doon ab dof nak leen mësa fekk si ndax lenn loo gis ci aw tund da am ñu ko da am ñu ko njëkk a def bu ñu liggéeyee seenam réew ba waa Sénégal di wax naan ko mbaa Barcelone mbaa Barsàq ko mbaa Barsàq bis bu ñu koy wax wala ñu wax bu boobaa danañ xam ne day indi doole tàggaloo day tax a néew doole yàlla yàlla jàpp leen ba bëgg yàlla nañ ko am euh, waaw xam nga Iran li tax bu doon song Israël day am problème tubaab bi dañoo ànd takkatoo seen xare bañu ñu xare lew xare woon ca moni Charles Martel ca balatu shuhada ba l'islam demé bay seen taaxi Paris tubaab yi defuñu jine jàpp ñom dajé julit nek seen ak mbolo moom seenu dee ba jeex jaral na leen ko ndax xam nañ bis bu juliti bolo ñom ba da dootu ñu bok Iran li nga xamné moom la Serigne Bassirou Diop busra la naa dugal léegi wasirul xaarija al iraani dafa wax ne nadou ad duwalul islaamiya ila fardi asri naftiyin ala nisaami sayuni nushaddidu ala tardi sufarai nisaami almujrimi min adduwali allati laa maahu li gën a yomb la Iran ñaan ci jullit ñi ndax dañoo wax ne xikma ba mu wàccee daa wàcc ci loxo tubaab yi ak ci làmmiñi naar yi ak ci boppi iranien yi ci seen xanaat xam nga loolu mu wax ne mboolem réewi islaam yi nañ embargo économique Israël ci wàllu pétrole ñi ko am ñëpp buñ ko ko jaayati ñaareel bi itam ñoo ngi woo tey taral woote gi ci mboolem ambasad yi nga xam ne ñooy ambassade yu Israël yi nekk ci àddina bi ci réewi jullit ñi ñu dàqaleen ñu dellu seen dëkk ñu dog ak ñoom seen relation ba mën a ba bañuy mën a jox waa Palestine seenum réew xam nga loolu moo gën a yomb xeex

arsul arsul sawri arsul jumhuri bi nekk eh, nakalaati eh, ak ak ñi nekk ak ñi asdu shaabi bi nekk Irak ak ñi nekk Syrie ak ñi nekk Hezbollah ci Irak eh, ci Libnan ak Hamas ñii daal ñoom seen jàkkaarloo ak Israël moom leer na waaye ñi nga xam ne bu leen seen population bëggee jaaxal ñu dem wuti ca Israël ay ay ay ay notaakoon yoo xam ne dañuy ñëw di leen entraîner naka la ñuy mën a noter seen population yow ku bëgg not saw askan bay wuti ku la jàngal nu ñuy noter di nga ko fekk muy not population am nga ko bu leen am na ñoo xam ne seen làmmiñ dina njëqi njëqi laa wax duñ ko wax naka la ñuy waxee yow kii kii ma ngay not askanu jàmbur ma ngay not ay nit nii lañ leen di yeewe nii lañ leen di tëje nii lañ leen di torturé ba ñu ne ñoom ñooy champion ci man a torturé doomu aadama nga dem ba dem na ko damaa bëgg sa jiw yi nga tàng ma ci damaa bëgg nga abal ma ñu ma jàngalal sama waa dëkk naka laay noté sama waa kër waa léegi yow sa maître boobu lay jàngal nooy noté sa waa dëkk est-ce que buy not ña mu dëkkal ñi ma ngaa wax boo waxee mu ne lay xëy eh, yow xanaa du fi nga ñëwoon bukki démb di ma di ma jàng di jàng ci man lu ñuy notew askan yow kenn de del not te ne miix may not te ne miix rek waaye moom doo wax aka niiw na nga gis réew Afrique yi yi nga xam ne dañoo bëgg a not seen askan jaarale leen fu leen soob lu dul ni Israël mooy seen patron ci naka la ñuy notew askan naka lañ koy torturer nañ lañ koy xorñoññele naka lañ koy minimiser ba ñàkkal ko fayda ba def ko ab jaam di ko wat du ne ngeqi fu la neex nga jëmale ko fa kii jàng ci yow nu muy noté aw askan moom du yàgg ba mu ne la bàyyil notaati Iran nag mu ngi woote loolu nee na na gars yi téye seen marchandise si pétrole yeeg gaz yi bu ñu ko jaayati Israël ñaareel bi itam nañu jël seeni ambassade ya fa nekk wax na dëgg ndax ah bombe Iran yi ma gis moom bu ko dóoree Tel Aviv ambassade bu mu fa fekk bu muy tuulee sa bakkan mën a caaxeeñ ah, ñu déglu nag ba xam ndax gars yi danañ def li waa ji wax wala déet bu ñu ko deful nag ngeen xam ne Iran dofu nu ji ne jàpp leen ah, ah, Christine Rinawi moom moo taxawal télévision bi ñuy wax Al Arabi ci Israël Christine Rinawi nee na ah Joe Biden de ñëw na Israël gane waaye Hamas itam ñi ngi ganale riina Rinawi ah Christine Rinawi nee na Hamas itam ñi ngi ganale Joe ndax Joe Biden ñëw na Israël. lu tax mu ñëw Israël daaru na njëkk a jaar Ordon waaye buur Ordon ñimee tut mu ñëw fa ginnaaw ñimee tut mu ñëw fa nag léegi génn na ca loola léegi nag ba loola amee Joe Biden dem na Israël gaa yi lañ xëy nag tàngal loolu ko ndékki ku saf sàpp ay ak yi missile missile yi daal kenn mu laa misaal nu mu nu mu doy waar te xam nga ñoom nanguwuñu gaa yi di wax li xew mustawtanaat yahudiye yi nga xam ne ñoo nekkoon sës ci Gaza cent mille ñoo ci njëkk a déplacé bàyyi seeni dëkk léegi nag genn wàll million tawe nañ fa bàyyi seeni dëkk dëgg la israéliens yi dañoo am fu ñu leen di mën a dem fat waaye ni waa Gaza di jaaxle di toñ toñi Israël a ngi jaaxlee raw loolu di toñ toñi moom tamit te loolu ngay gis duñ ko nangoo feeñal waaye Biden moom gaa yi dinañ ko wan ne yónnee nga ñaari junniy soldaar yónnee nga nabi di guerre bi gën a rëy ci àddina muy Gerald Ford teg ca beneen tegaat ca beneen pour bëgg a xëbal ba dinu jiima xëbal waaye loolu moom dàqunu gars yi dañ ko xaar ba mu ñëw Tel Aviv gars yi la classé ay missile xam naa ne bu ñibbee dina nettali jabaram ne ko xaw ma nuñ koy waxee ci anglais waaye daal xaw na maa dee ndax ndax ndax waa waa waa Hamas dañoo bàyyi ba ma dem Tel Aviv ñu lancé missile jàmm amul ci diggante bi xëy na jullit ñi ñoom dañuy sàmmoonte ak àqi doomu aadama te banu Israël sàmmonte wuñu ak aadama waaye taxul leen a am jàmm bal yaa ngay tàkk naam ca Gaza waaye tamit nag bal ngay tàkk nag ca biir Israël te li gën a day kiimaan mooy Gaza dañoo na ay commando lu mat ñaari junni jaax ba dugal leen biir Israël ñu raaxaloo ca biir Israël bokk na ci li gën a jaaxal Israël lool ci la bokk ndax bu ñu attaqué Gaza te am na ñaari junni commando yoo xam ne ñu ngi leen raaxale ci biir Israël ci dëkk yi ci dëkk ci dëkk yi Israël yi ilif naka lay deme ah bu bal yi tàkkee fépp lay tàkkee loolu mooy problème bi te arab yi dëkk biir Israël tamit ñu ngi leen di jàppale ci kaso bi ndax dañ leen di soupçonné ci la yéenay jàppale waa Gaza waaye daal ñaari junni kataayibul xasam daal ñaari junni ngi ci biir Israël yoo xam ne dugg nañ fi ne mes kenn gisu leen jàpp ñu leen reyu ñu leen kenn gisu leen xëy na bu ñu doxee ba ci kanam tuuti dana gën a leer. waaye Gaza moom fa mu nekk du fa jóg bu leen Israël doon taal ñoom ñëpp itam dañuy taalaale prison yi rek waaye prison yooyu ñu tee duñ leen joxe yow mënoo jël lépp ñaar fukki junneeg nangam ci ay doomu aadama tëj leen ci sa dëkk ñu dëkk ci dëkkum jàmbur ñu jàpp ci ñaar téeméer rek lu topp nga ne dangal ñu koy jox fa la force Gaza du ko joxe Israël lu metti metti mooy mujj sukkandaam comme bu njëkk rek yal leen yàlla jàppale. te xeex bi xeex ñu jot seen suuf am jàmm nit ñi am jàmm laa ma sala sidna um bayna um shadid moom la seenu njàmbaar ci ñoom rek la dangay seet xarbul iraqiyatil iraniya Koweït milliard la doon jox Irak chaque fin de mois 1 milliard la doon Irak mais boba amna ay téni pétrole Irak yo xamné dalatu talatu rot ko koyet mi ko doon sacc waye chaque fin de mois daana ko jox 1 milliard ngir lan ngir mu continuer guerre bi Arabie Saoudite fu or jox ko Saddam Hussein Kalachnikov fu or gogou bi Américain yi jàppee Saddam Hussein jël nañ ko ci kërëm ba diko foto woon fu or gogou dañ ko yobul Source te Arabie Saoudite moo ko moo ko defaroon ne ko da koy décorer da koy décorer Saddam Hussein maanaam Iran moom buy seet fii arab yi jaaroon ak moom lépp lu muy def ci islaam da koy def ngir diine ji rek waaye bu dee arab yi du ko def ndax na mu deme la waaye population iranien nañu def dëgg la ndaxam yoonu yoonu Sénégal am na ci yoon yoo xam ne ci yoon woowu ñu ngi ci jaar ñi nga xam ne ñu ngi tabax ay daara yu mag bëgg a jàngal seeni taalibe wax dëgg yàlla yoon woowu ñu ngi ci jaar ah ñu ko deful ba tibay paati na képp ci boole rek ne doomi sëriñ seeg doomi seex yeeg ñooñu rek la ñuy jàngal de lu muy dañuy jàngal waa Sénégal gépp ah bu yàggee dinañ am résultat bu clair ndax école mën nga caa bokk sax te doo bokk ca tarixa booba waaye dañ laa jàngal amaa nag ni ngay yare gone yi ba gone yi nangoo toppee moom loolu moom man ñeenti at maa ngi leen man ba ma ko waxee yàgg ne ne leen affaire yaa ngi jeex gone yi mujj juddu dañuy lànk waaye nit ñi gëmuñu loolu ba léegi te man xam naa ne loolu ma wax moo am il faut ñu changer organisation teg gone yi ci yoon woo xam ne ëllëg seen avenir u àddina dana mën a dox te du ñàkk seen diine lu ko mooy dana ñàkk gone yi ñun koy xam nañ lu lu wér ndax ñu ay ci kër yi murit yi lañ bokk kër goo xam ne kay ba fi maam yi di nekk dañu daan sas nagu gàmmoo nagu tam xarit nagu ñetti fanu baraxlu nagu màggal nagu lii nagu laa sasu doomi soxna yi dugg na fii génn fii léegi ah nun moo noo ngi màgget gone yi ñoo fi des gone yi tey koo ci tudd mu faxasi noppam ne li bi bëgg laa bëgg damaa bëgg a damaa bëgg a tedd koom moom tedd koom ay doomam loolu kay su amee mais yow loolu dugg bi laay du dara yow yaa xamal sa bopp ne ginnaaw luy saamaam nangu woon na ko saa baay nangu woon na ko maa ngi ciy def li ma man samay doom lank nañ ne ñoom duñ ko def su ma dee mu jeex kay loolu amul lu ñuy wax moo wër nag Sénégal ba mu daj 33 30 ans moom jëm suuf 33 xaw ma 35 ans 33 jëm 30 jëm suuf moom li li ci juddu. te seen i bàyyi mënoon ci yoonu Sëñ Tuubaa ci yëkkati alal joxe kooku liggéey ñooñu moom bu seen bàyyi dee ba jeex buñ fi desee da ngeen dóor seen loxo ci ëkk de ndax noo ngi dundandoo ak ñoom xam nañ li xew koo ci ne sasoo ñu sànni lay loxo man saa bopp laa tal il faut ngeen changer organisation mbaa dootu leen dem mbaa di ngeen dem ba nam doon demee dootu ko demee. at ordogal l'Iran y a des soldats fofu. Il y a 2 millions de volontaires qui ont fait une formation armée Dans l'Iran, ils ont fait pour aller Israël. C'est ce que je veux 2 millions de volontaires qui ont fait des anciens combattants qui ont fait l'Iran combattants qui ont fait pour aller à Gaza. loolu daal depuis bu moom ñu ngi koy annoncé waaye 2 millions yooyu nag demaguñ fa duggagu demaguñu fa daal li gën a gàtt waaye am na 2 millions volontaires yoo xam ne bëgg nañ fa dem xam nga boo gisee euh, muy baree noonu euh, dañuy trafike ci biir trafiquant bi mooy bu Iran wootee tataw guerre bu jëm euh, Gaza moom mi ngi frontière ak Afghanistan population Afghanistan da ngay gis ñu fa jóge ñëw bindu mi ngi frontière ak Pakistan population Pakistan da gis ñu fa jóge ñëw bindu te askani urdu yi dañoo nekk ci ñaari boor yëpp ci frontière yi waaye daal Iran moom fa lañ présenté wu ba bindu fa lu mat deux millions de personnes yoo xam ne ñoom taxaw nañu ci dem xeex yi ca Gaza xaw ma nag naka la muy mujjee waaye daal ragal naa ne Israël moom doon la jël ay mercenaires yoo xam ne ci réewu tubaab bi la ñuy tubaab bi nag dañoo li tax seen xeex naqaree lijjanti seenu askan ñëpp ay dem soldaar ba libéré doon soldaar yu nekk ci mbedd mi ñaareel bi tamit bu kéefar bëggee néew doole duñ indi seen armée bopp bi waaye dañuy waajal yeneen i soldats yoo xam ne yi ay volontaire lañuy doon ñoom dañuy dem ak guerre yi am nay mercenaires yu bari yu dugg Israël moo tax ñu bari di ñaaw njort ne est-ce mii du songu Gaza mën na ko songu te du ko songee waa Israël waaye songee ko ay mercenaires loolu daal moom mi ngi mi ngi ñu ngi koy riim Iran nag moom am na de million de volontaires yoo xam ne nee nañu bu ñu nangoo léegi ñoom ñu daal di leen jaarale siri ñu jaar Golan dem xeex yi ca Israël.